parce que tey lañuy ñuy wax rek intérêt positif moo am solo waaye intérêt négatif yi moo ëpp parce que tey doomu aadama boo gis muy ànd ak nit am na lu tax wax jee fi nekk coolee fi nekk waaye kenn ku ci nekk am nga loo ànd ak nit waaye la nga ànd ak nit nag fexeel mu doon dëgg loolu moo am solo dëgg bi waaye dëgg bi moo fi jafe bugguma ñu naxante bugguma nga nax ma xam nga ni soppuma la xam nga ni bëgguma la li ma jaay moo tax ma nekk fii jooy ni ngu démb doon tey du ma ci dugg naka zaalika jigéen naka noonu waaye damay wax ni kenn ku ci nekk kenn naxu la yaa nax sa bopp ndax sa commencement ba lan nga tàmbalee ak nit ki lan moo la taxoon jóg ak nit ki ak fan nga bëgg jëm ak nit ki xam nga ko ko ci sa biir xel xel mu rafet bi mi ngi naan laan xoolal li ngay def waaye xel mu saay-saay ni mi ngi naan laan duggal rajaxe daal di génnaat yaay booy baay booy du fépp ngay dugg daal di génnaat rajaxe wax loolu leer yàlla dafa maye te yamalewul te amul benn jigéen ci kaw teer bu damani li ngay fooye am na keneen ku ko fonk boo ko fonkul bàyyi kaat keneen kooku dina ko jëlal li nga xam ne mooy boppam defal ko ba mu rafet waaye dinaa la wax ni tey soo ceexee sa loxo bii di joy nga yaakaar ne dinaa la nax déedéet nu nga la nax ndax ba ngay dem tàggu woon nga ma te ne woon naa la bu ci dugg nga ni ma bàyyi mu dugg génnaat dugg génnaat lor na lu bëree bàyyil ma xool xale bi génnaat lor na ñu bëree bàyyi mu dugg rek am lu ma ci def loolu sunu langage la ñu góor ay nañ ci torop waaye dañoo am bërét bërét dëng waaye amuñu daaneel fa ñuy mujjee ay daw la ñuy mujjee bu dee ku góor ki la bu beri kunci gintil lah. Mesti beri lagi dugu mek pada aidau lagi muci. Walau tak ni muci aidau lagi dan ko. Ada lah khamal tay. Dembu, dembu la tay tay lah. Bu khali jige ni nyakon khel lol. Tay la sen khel dina ye lol. Ndax tay si jamono fi mu tollu tay. Kenn ku ci nek war nga xol ngay andal, ka nga bëgg andal. Ndax mengo nak say bëgg-bëgg ndax bëgg-bëgg weesuwul yow li nga bëgg doon xam nga ko li nga bëgg nekk xam nga ko ci biir relation bu fekkee loolu woote nga bëgg woote te nekku fa lu tax ngay insister lu tax ngay forcer lu tax nga ci insister ngir bëgg relation bu nekk relation bu ñuy forcer baaxul dinaa la wax nag tey ñaar nga xam ko guddi gi lëndëm lëndëm dina leer lu ñaaj bu tàng tàng dina sedd lu koor gi metti metti metti heure ndogu dina jot kon goreel